Sud FM, il est minuit. Aïssatou Gueye Ba Bonsoir et bienvenue dans ce zéro heure. Nous démarrons avec le transport des denrées alimentaires destinées aux populations démunies à l'intérieur du pays. Gora Khouma, secrétaire général du syndicat des transporteurs, alerte et euh, met en garde les chauffeurs contre toute tentative ou tentation de détourner l'aide alimentaire. Il s'est également prononcé euh, sur le non-respect des mesures de circulation des personnes avec euh, la complicité de certains euh, Conducteur de camion, voici Goro Khouma au micro d'Amadou Moustapha Dia. Oui, tout à fait, tout à fait. L'Union des routiers lance un appel à tous les camionneurs de respecter les normes, de ne pas décharger la marchandise, quel que soit le lieu, tant arriver à la destination. Puisque ça sera, du vol et que l'État va prendre les responsabilités qu'il faut. Il y aura des sanctions et le syndicat dégage la responsabilité à qui le fait. Donc, nous conseillons A, destination sans contournement ne ne descendez rien du tout la marchandise a une destination il faut la respecter respecter la destination sans pouvoir descendre rien du tout devant le policier non devant le policier devant le gendarme non devant le gendarme il faut être honnête sérieux respecter vous-même devant le syndicat dégage toute la responsabilité à celui qui le fait c'est pas tout le monde y en a qui le font et on dit que y a il y aura peut qui vont le faire qui du point A vers la destination du point B euh, sans, escale ni déchargement quelque part. En tout a Et que cette le transport est interdit d'une région à une autre. Pourquoi les camions le font si y, a des gars, certains camions qui le font, qui prennent des passagers et cabines et qui les réclament 15 000 francs, 20 000 moi, en tant que personne morale, je donne ceux qui le font sur sérieux. et que l'État doit prendre la responsabilité de montrer ce qu'il faut, parce que c'est pas sérieux. Le camionneur n'est pas dédié pour faire un transport de personnes. Il faut être sérieux. L'interurbain est à l'arrêt. Si on nous laisse, nous camionneurs, de on doit être sérieux. Ne prenez personne les mettre dans la commune pour, pour, pour, pour, pour demander quoi qu'il en soit. C'est sérieux, il y la maladie, on évite la contamination. C'est pourquoi on dit que la cabine, personne dans la cabine. On ne doit pas li européenne condamne ce qu'il faut. Il y a des déjà chargé et que le président Donc, ça, ça, il y la suite. Donc, et nous, comme nous, nous avons une grande chance. C'est que les aides alimentaires, là, c'est un pour nous. C'est un marché pour nous. C'est pourquoi on reste là sérieux. En tout cas, le syndicat pas trop peur. Nous, on ne donne la marchandise. Nous ne faisons que, euh, peut Et puis la lutte contre le coronavirus risque d'être difficile à Mbour. Les ménages sont privés du liquide précieux. L'eau ne coule pas des robinets à partir de 8 heures. Euh, jusque tard dans la nuit, l'inquiétude gagne du terrain à mesures barrières contre le Covid-19 à Mbour. Malgré la décision des populations de déclarer la guerre à la maladie, les ménages sont privés du liquide précieux. Dans plusieurs quartiers de la Petite Côte, à partir de 8 heures jusque tard dans la nuit, pas une goutte d'eau ne coule des robinets. Une chose incompréhensible selon les Mbourois qui cependant gardent l'espoir de faire reculer le coronavirus. Une situation qui dure depuis plusieurs jours. À la main, en train de chercher de l'eau pour au moins propreté avec le lavage des mains, c'est la croix et la bannière pour le respect des principes édictés par l'État sénégalais. Beaucoup de questions tarotent cependant les esprits dans ces quartiers de la commune de À quand la fin de ce calvaire qui a fini de faire perdre le sommeil aux chefs de famille de la Petite Côte en cette période de guerre contre le coronavirus qui commence à connaître un net recul où la situation est beaucoup plus récurrente messe, pas de mobilisation. Gigachor a fêté la résurrection du Christ dans la plus grande sobriété. Une fête vécue de façon spéciale à Tilène, un quartier qui abrite une forte communauté chrétienne. Ignace Ndeye. Nous, on ne sait pas. Hein. En tout cas, on ne sait pas à quoi ça ressemble parce qu'on est là, on reste, on ne sort pas, mais on reste à la maison pour prier. Nous sommes chez la famille King à Tilène. Tilène, un quartier de Ziguinchor avec sa forte communauté chrétienne. Tilène, d'habitude très bouillant en de pareilles fêtes. Pâques y est célébrée cette année dans un contexte particulier. Une fête difficilement vécue par cette famille King qui a célébré Pâques à sa manière et sur fond de confinement. Nous avons prié en famille, en famille, dans la maison, porte fermée, tout. Nous avons prié à l'intérieur. Et nous avons demandé à Dieu que ce problème ne, revienne plus. Ce matin aussi, on est là, assis. comme je suis habillé. Je vais nulle part, je vais pas bouger. Ça, c'est mon beau-frère. Nous avons fait notre messe à la maison, porte fenêtre fermées. Nous avons prié à l'intérieur. Une situation inédite pour ce sexagénaire qui n'en revient pas cette année. Une fête de Pâques comme ça, c'est incroyable, lance Robert King, le chef de famille. Oui, c'était très animé, très animé. Très animé. Cette année. Ah, cette incroyable. année, rien, rien. Incroyable, mais vrai. yàlla bu mu am mu amati lu mel nii yàlla bu mu amati que Dieu nous en préserve mu amati fenn waaaa ak ci leen nu muy animé ngeen nga toog nii rek finalement toog les chants chorales sortis du BAF à volume réduit rappellent ce contexte de fête de Pâques dans cette famille King juste à côté de la famille deux jeunes assis dévisant autour d'un verre cette fête de Pâques est spéciale très spéciale comme nous le décrit ce monsieur. C'est assez spécial, très spécial. Et après, voir les amis et on est obligé de fêter puisque on est en temps de couvre-feu. Donc la fête va être courte. Uh -huh. Donc on profite de la matinée prendre un coup et partager la joie pascale. Ainsi, les fidèles chrétiens à Ziguinchor ont vécu Pâques dans la plus grande sobriété ici à Ziguinchor. a fekk ma dóor sama costume dóor ma maa ngi ci lieu public yi. mais mënu ma dem fenn solo maa ngi toog du ma dem fenn. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 0 heure. Tout de suite, la version Wolof. Aïssatou Ba bismillah euh, dal leen ak jàmm ci xibaar yi ndund bi nga xamante ne moom la nguurub Sénégal jagleeloon askan mi nga xamante ne euh, seen loxo jotul seen ginnaaw mu mel ni nag wax ju bëri tàmbali na see jóge euh, ci kaw ni ko transporteur yi di yóbbee ca diwaan bu nekk kii di Ngor Xuma nekk nag secretaire général bu syndicat dawalkat yi di wax rek ne yooyu lee dund di ñu xamal tamit ne du nangu benn yoon yenn naataangoom di jël yooyu lee ravitaillement di ko yóbbu feneen fu dul fi leen autorité digle yëkkati na tamit ay kàddu di ñaawlu itam ñi nga xamante ne dañuy rek yàpp nit yu bëri comme ni ko nguuru Sénégal digle woon ñu teewlu ko ci micro Amadou Moustapha Dia. waaw d'abord li may li may jëkk def mooy rafetlu ko ba pare wax sunu mbokku chauffeur bi ne leen képp koo xam ne jox nañ la chargement mu war a dem fa mu dem. bul jàdd di wàcce dara nga dem destination direct convoyeur bu mu la wàcce loo leen yow su ma aussi bul gis bul wéet ba wàcce dara nañu sérieux yëpp yi ndax bind na la yóbbul na indi destination direct mun wàcc ko kër pour wàcc feneen na dem directement poñkal la sant boo gisee ndawal buur comme ñàkk nga ndawal buur jàpp na destination ba nga am na fa matériel ba egg mais bu bul wàcc sa kër bu wàcc kër keneen waa dafa am transport camionneur yoo xam ne yi ñu ngi yàpp ay nit si seen cabine yi te état du Sénégal dafa jox ndigal na kak oto bu nekk ne ñaar ñu fi nekk muy conducteur bi ak convoyeur bi maanaam moom emprunté la doon léegi nag ne am na donc du ñëpp mais am na ñoo xam ne ni dañuy jël ay passagers di ko def ci cabine oto yi di leen encaissé xaalis di leen yóbbu fu ñu bëgg union des régisseurs dégagé na responsabilité ci jàpp union des def ñu bàyyi ko mais am na ñu koy def kon syndicat dafa leen di doroose war na àndu ci ñu àndu ci liggéey lañuy def waaye si lancé nañ ko depuis démb dans démb démb def nañ ko président lancé na ko premier camion yi chargé lancé na ko départ nañu léegi nag euh, kenn ku nekk yaa ngi liggéey yaa fa nga war dem yaa ngi dem comme problème transport la daal ne kenn ku nekk dem jël say say engagement ak ak ki la jox chargement bi mais le syndicat n'est pas transporteur moom di jox kenn chargement mais ñun li ñu mën rek mooy surveiller leen encadrer leen ba ngay jël seen chargement mais ñun moom syndicat bi transporteur dara ñu wax ba tey ci lu ñu naan xeex mbas mi di Covid 19 ñu daal di rek dem fële ca diwaanu Mbour waaye mu mel ni nag askan wi fa nekk mi fa nekk dañoo rek mer ba futu li ko waral nag mooy ñàkkum ndox bi nga xamante ne moo fa am jamono ji leeral yi ak Babacar Sow. ndogal yi ñuy teg ngir xeex ak feebar bi nga xamee ni moo di coronavirus ca diwaanu mbuur nekk na li nga xamee ni li lanu dong moo def suuf si cere ji moo di gox-goxaan yu bëri yi nekk ci dëkkub Mbour ndox taw bu góor la fa suñu demee ko ni ci gox-goxaan yooyee suba teel ba am fi nga xamee ni moo di ci robinet yi di loo xam ne lii ëlëm na lool doomi mbuur yi nga xamee ni nee nañu daal ba léegi ñu ngi am yaakaar ne daañu mën a jàkkaarloog li nga xamee ni moo di coronavirus donte sax ay fan yu bëre ngi nii tokk ndox gisuñu ko benn yoon suñ sukkandikoo ci jigéen ñi nga xamee ni daje nañu ak ñoom ñu gàdduk paan di taxawaalu ci mbeddi mbuur yi nee nañu leen dong moo leen ëlëm ndogal yi nguurug Sénégal tëral ci wàllum set raxas loxo nekk na loo xam ne lii su fekkee dina wëy nekk na li nga xam ne dootul mën a nekk ñu am ci ay jiixi jaaxalool lii ba kañ lay dakk fii ci diwaanu mbuur askan wi ci bëri nelawutuñu ba yandoor rawatina borom njaboot yi nga xamee ni jamono jii nemmeeku ni coronavirus mi ngi deltu ginnaaw boo deful ndànk mbir mi dina doy waar di loo xam ne lii mu ngi gën a tare ci quartier yi nga xamee ni ñoo wër château d'eau bu Mbour Babacar Sow dañ ko jokk ak fii ci Mbour pour Sud FM suñu mbokku chrétien yi nak daanaka tey jii nañu tàmmee woon di féetoo li di Pâques mi bokkul wala sax wute na lool ak at yële passé ndaxte ku nekk dafa rek toog ci këram ngir moytu mbas mi di Covid 19 loolu nag ñi ngi ko seetlu wala sax nemmeeku fale ca dëkkuwaay bu ñuy woowee Tilène nekk fële ca Ziguinchor ñu ànd sekk Ignace Ndeye. ñu ngi nii daal ñu ngi nii ci kër gi amuñu fenn fu ñu dem. mu ngi toog ak paa bi famille en famille la ñuy toog parce que lu ñu wax loolu la ñuy respecté. kaddu yi firndeel naka la ñu fëttee ren fetu Pâques fii ci diwaanu Ziguinchor rawatina ca quartier Tilène te njabootu famille King fête bi nga xamante ni beneen melokaan da daal di am ren ci contexte coronavirus bi ni mel di fête bu ñu màggal ci ay anam yi nga xamante ni duñ koy faral di def naka la ko monsieur King di chef de famille daal di xamle. démb on a prié en famille on a kër ga waaw. prié en famille on a mangé en famille ma dem boutique jënd leen boisson dox leen ñu békkee waaw c'est comme ça qu'on a prié on a fêté la fête hier waaw tey ma xëy ut waaw bonjour xëy ma xëy utal leen quelques ganaar yu yëy baxal yëy jeex na c'est tout la fête est terminée situation bu inédite pour feetu Pâques bi ren naka la ko ak ah, kii di ah, góor gi daal di xamle jàpp feetu Pâques bu ni mel moom musu koo gis. oui mais ba léegi musuma gis lu mel nii. ba Pâques mel nii Pâques mel nii musuloo ko. mukk mukk mukk mukk yàlla bu mu am. mu amati lu mel nii. yàlla bu mu amati. que Dieu nous en préserve. mu amati fenn. liy firndeel ñu ngi ci feetu chrétien mu di ay woyu choral yu bàyyeekoo ci baafu ci volume bu néew ci njabootu kiiw ca quartier Tilène Tilène bi ñu jàpp ni bokk na ci quartier yi nga xamante ni ëmb nañu lim bu takku ci wàllu mbooloo chrétien juste ci wetu famille ki ñaari xale yu góor daal di toog wane ni ñoom nii la ñuy màggalee seen feetu Pâques. ndaxte jóg naa seetaan naa télé seetaan naa fekkee fekkee naa messe messe euh, catéo. mais léegi mes jeex na gën naa comme léegi ñuy couvre-feu kenn du gën guddi man ñëw toog ak suma xarit yi may béggee tuuti ba ci kanam ma ñibbi dem toog ak njaboot. fidèles yi ren daal ma magal fetu Pâques ci tekk ak tey ak ci contexte corona bi ni mel di fet bi nga xamante ni ci contexte bu doy waar la amee ba tax na ki nga xamante ni moom moo di Robert King di fàttali ni mu daan amalee feet yi moom. maa waroon a fekk ma dóor sama costume dóor sama affaire maa ngi ci lieu public yi. mais mënu ma dem solo. maa ngi toog du dem fenn. Ziguinchor Ignace Ba. fii la ñu yenn yéen ak xibaar yi jël ngeen jëf ci teewlu mi ak yaatal gi seeni fàtt yi moo féete woon ci machine bi ñu faran jàmm.